Assalamualaikum ñu ngi nuy képp ku ñuy sétan tay ñu ngi fi ci xaar yàlla ci concert Dof nday fas yéene dugg ci biir rek lépp lu fi nekk rek ñu indi leen ko en direct ana xaar yàlla bi amul waa xaar yàlla ana ñu ci bëgg dof ana ñi bëgg kërëm yi maamam ana ñi bëgg Alassane mooy chéri dégg naa du ma fàtte mukk suñu ko feebañu suñu yaay jawoo yaay xoolal bëgg rafet ni nga tàccee jamaa I'm not. soxna si mhm. ma gis la sank nga nek ci organisation bi son lool malay laj yow lan nga ci def nday wa def nday mun naa ne bàjjen laaj parce que euh, mamam ak suma papa ñoo defando armée français en plus papam ak suma grand frère ñom ñoo and biñu nekké xalé ba légui yalla def xam nga pël mom dafa nek nit bi nga xamanteni rek mom dañ naan ne doko bandum yalla def man nekk bàjjenam muy sante yalla mo sante yalla mo waral man nek ci affaire yi xaar yalla nak yaatu torop torop torop torop mu bàyyi ñëpp luñ toll mu ne jeene ba yow yaa may jiitalal waaye nag nee naa man mënuma yàlla rek moo mën yàlla nu yàlla jàppale ci barke Seydina Mouhamed waaw. waaw ban yëg-yëg nga am ci concert non ma dama kontaan barke Seydina Mohamed dama kontaan trop trop trop trop trop may ñaan yàlla lii nii mu jëm ci kanam avancé yéen tam journaliste surtout su yéen tamit ngeen bàyyi seen yitte bàyyi seen lépp ñëw fii nii xam nga ñëw bokk fête affaire yi quoi xam nga ñu nekk ñu fëtal ko ensemble may ñaan yàlla yéen tam lii ñu dem ba nekkan biir Bercy yi yéen ngeen toppaan ñu foofu noonu mais yow dof lii muy xeex banditisme yow noo ko jàngate ah mais dama cee kontaan dama cee kontaan trop trop parce que nekkoon na ci yoon boo xamante ne woon tey neexul ay kilifam neexul ñun euh, koñ bi tamit aussi neexuñu woon mais yàlla mooy baaxal tey jii da ngay yar sa njaboot ci sa biir kër mu génn ci mbedd bi tamit mbedd bi tamit jël wàllam mais heureusement que jiyee grand ba nga xamante ne xëy na liggéey ndayam ak barke baayam moo ko wàññiwaat gannaaw yàlla mu ñëw tey jii mu ne moom tey ci li mu nekkoon da koy bàyyi ñëw tey jii xeex banditisme du noonu ñuy sant yàlla quoi parce que yàlla moo ko baaxal parce que tey am na ñoo nekk ba dee ci mais moom heureusement moo tax tey moo ñeekuwaat tey jii nee na moom dafa bëgg a génn ci affaire boobu kon dañuy sant yàlla di ñaan yàlla mu jëm kanam dañuy sant yàlla ci loolu noonu noonu ku ku ku ma seen ku a ju anoo an ku sofe ku nga ko mokk mu mu yit ca su sut bare sofi ba ku man mat lee mu bu kaa nu di ku jaa ko ku ba ka ku ka ku ma samedi di fukk ba ku ko tor di si seka ka roke ku tay ku man mati sixième continent le wati le ku bet ku ngir ka tane kese man ku kila ka tanu yow yow kese aw adi fan an la tar bu kam aw man mati ka sixième le ma gomul ma plenu ma jamurai ku ma nga jabara jai ate bit amori wut ku kat wajate pambi bollywood fer takanye takalimis mano man banku put le tan kole di kili di joy be le parents ont leur part de responsabilité sa dom war ko ko jangal fidélité kantu mo boko fatno diko laat diko ñoso diko faat ati dan duñu do bonke du kanu ka jipo mana ngene jiyat a ngel kondi ko kuli jiyat paku jume nyurere ngani kuru mene jay boto kagere ken busala pati jab gonnor gonnor ajana kana wutani ne jagoror ku dobale be bor pampu ngon man mata jambaran la tani blor kate kate jangon wonu kajana len du to wolo laal mu ngole mu jone ko laal rofo mu kanyo ki nyaabare bi nyaaro mam be biya ka kajen bu kori du bu bok apa gomulom bi jinga ji bok ji ngare ji fok